lu ñu boole fii weesu nañu ay jot xaalis ak jotul xaalis lamb bu taxaw moo tax ñu teew fii mm-hmm. kon tey ay jot xaalis ak jotul xaalis defe naa bariwul ci importance mm-hmm. lamb ji taxaw la mm-hmm. bi tey mooy sama yëgle ñëpp comme ba léegi ñu ngi wax taxaw naag taxawul ak li am nag lii am na waaye sorte bi tey loolu moo waral point de presse bi bu ñëw leeral askan bi ñëpp ñu doon am dut leen wax lamb bi taxaw na taxaw na nag jeexal na wax